taalibe yi ñu ngi lay seetaan ah tey nga ñëw seet si sa xarit sa doomu ndey xam nañ sa diggante ak moom ngeen nekk ay mbokku taalibe tey nag moom dafa mel ni tey da ngay gën a yéeg tey moom da ngay daanu parce que sa sëriñ la ñu tuddee bébé bi. mais doom day kon naa sama xol seet na. kontaan moo tax ma ñëw liggéey samay guro. yooyu guro man laax laay xaar parce que ma xiif maa ngi wax rek suba ba tey. xam nga xale xam nga xale bu yooyu guro. àdduna tukki na mais dama kontaan. sama xool dafa sedd guy. bëgg naa mbégte moo xam ne Serigne Saliou Mbacké rek laa ko seeral. Balla Gaye lii mu def man mii la ko defal mi maam am tey moom laa amoon te ba may tuddee sama doom ji Seydina sëriñ Saliou ñun amuñu ku dul Serigne Saliou xamuñu ku dul Serigne Saliou bëgguñu ku dul Serigne Saliou kon tey ku nu woo ci moom walla nga bumax nu ci moom wala nga xaal jëme ci moom danga ñu fay fekk ñu toog ndax mooy suñu lépp Balla Gaye yàgg naa ko bëgg. Balla Gaye yàgg naa koo jàpp Balla Gaye yàgg naa koo téye Balla Gaye yàgg naa am ci moom yéene yàgg naa am ci yaakaar yàgg naa am ci moom cofeel waaye tey la wàllu gën a aay Bamba. mais Omaro tey du la gis te du la laaj ci benn mbir muy benn genre ñàkk déggoo bi am. ci sa njaboot muy njabootu Cheikh Béthio ba ci màggal gi amoon na tuuti coow après après màggal gi ci gaa am na tuuti coow en tant que taalibe tey noo koy jàngatee ak lan ngay wax say mbokk taalibe man moom sama waxi démb mooy sama waxi ndigal moo ma ñor murit la jokk ci Serigne tubaa ak njabootam Serigne Mountakha Mbacké mooy sama xalifa lim ma digal laay def lim ma teral laay bàyyi lim bëgg mooy ma ànd ak Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée man ànd na ma moom di xaar ay ndigalam jóge ci moom jëm ci moom ma jëfe ko di xaar ay ndigal jóge ci sëriñ Cheikh jëm ci Saliou Gueule Tapée man ma jëfe ko la ca nag man sama yoon newu ci li ma ñor mooy li sëñ Muntaxa bëgg sëñ Cheikh saali bëgg ko te loolu laay def incha allah. fu Omaro ñu ngi lay kontaane bu baax a baax a baax kon mi ngi noonu euh, Balla Gaye ba tey. Euh,